Abdoulaye ah, Fane ñu ngi lay nuyu di la dalal ci mi ñu mm-hmm. ñu am waxtaan wi jamono ji nga xam ne ñu ngi ci ouverture des classes ouverture des classes comme ni nga ko euh, xamee euh, parent d'élèves ñoom euh, li dal seen ndond wala liy ñëw si si ñoom day bëri day diis tey ñu wax leen ni dafa am yokkute ci inscription yi nan ngeen jàngate mbir mi waaw dañ leen di gërëm di leen sant ndaxte bi mbir mi amee ba ñu wax ko yéen daal euh, wasaare ngeen ko ba ñëpp dégg ko ba fan yi ñu ñaan ñuy interpellé suñu bànqaas yi nekk ci département yeeg yëpp dañu interpellé par rapport à ça li ñu ciy wax rek moom mooy euh, depuis mille 2010 jamono yi Khalidou Diallo doone ministre euh, dafa génne woon benn circulaire bu mu ne woon ne maanaam frais d'inscription yi diggante juróom benn téeméer ba ñaari junni te ci montant boobu luy wàllu blouse ak wàllu lépp loo xam ne dafay dem ci njàng mi. Mhm. foofu lañ ko war a tibbee bu ko defee ñu man ci euh, mën ko saafaraa. Mhm. léegi nag dañu seetlu peut-être amoon na fi sax waaye depuis ren moom dafa jéggi dayoo da ngay gis ñoo xam ne ñi dañuy koy commencé li ko dalee juróomi junni dem ba ay juróom-ñetti junni. Mhm. Euh, te loolu it texte bi waxu ko. ba affaire bi amee nag ñun ñu dal di génn def sotti dal di ne bépp kuy wéy juru ndongo. waru ko nangu. waru ko nangu parce que am na fu mu war a teg baaraam par rapport ak loolu. Mhm. léegi nag depuis loolu am réaction dëgg la am na nag chef d' établissement yoo xam ne yii dañu naan alors ñaari demi moom mooy cotisation frais d' inscription yi waaye dañu ne euh, lu mat ñetti junni pour ay tenue yi kenn xamul te loolu. amul euh, benn texte bu ko prévoir mhm. donc parents d'élèves yi mën nañu daje nag en assemblée générale extraordinaire dal kat gis nañ ne ñaar junni yi na mais ñun nangu nañu ñu dal di yokk ñoo xam luñ ci yokk mhm. mais bu boobaa na am benn procès verbal bu ko firnde ñu la koy envoyé si conseil de gestion bi mhm. bu ko defee proviseur bi dal di jël euh, dogal sa li nekk nooy dilu ndongo yi ñoom leen yokk lii mais tant que loolu amul ñoom mën nañu l'autorité dal di décider si seen conseil de gestion wala ñoom si seen école yi ñu décider ne dañuy yokk temps loolu mënul nekk léegi nag wax nañ ko ministère ba fan yi rek directeur de la formation Euh, Mamadou Moustapha Diagne génn na def na sorti mhm. wax ko si su rek waxtaan nañ ci aussi ba am nañ yaakaar ne ñu ngi prendre en charge loolu bu ko defee wax dëgg yàlla ñu ngi dal di yemale parce que waajur yi dañoo sonn sonn nañu ubbite école léegi moo gën a nekk sax ay tabaski ak yeneen feet mhm. boo amee ñaar ba ñetti doom loolu dal di dal di tegu tegu sa ndodd wax dëgg yàlla te fourniture ñëwagul ak ay yeneen prise en charge mais loolu dafa métti di di di leeral ne nag aussi il faut que ñëpp xam ko waajur bu nekk am na ba 31 décembre fanweeri fan ak benn ci weeru décembre bii. Mhm. pour mu mën a verser frais d'inscription bi war ñu dàq kenn. am na beneen bu ko génnee aussi jamonoy Serigne Mbaye Thiam. Mhm. boo xam ne bi dafa ne woon ne benn xale bu dal di ci école ñu dal di koy génne ndaxte euh, cotisé cotisé wul. Mhm. donc loolu aussi il faut mu leer ci bopp waajur yi ñu dal di koy xam proviseurs yeeg principaux yi aussi dal di koy xam. ba képp ku ñëw ci école. même bu fekkee ne sax indiwul frais d'inscription lañ ko may ba le 31 décembre. Hmm. moo xam ne mu koy fayee. voilà. léegi ñun dañoo bëggoon a xam ndax yéen ci kaw éco yooyu ngeen am am ngeen ay école euh, ci xayma ñaata la toll ci ñi nga xam ne tey dañoo jékki-jékki yokk seen i frais d'inscription. xam nga ñun dañu di organisation bu responsable. Hmm. te ay mag lañu lu ñuy def dañuy laaj ay firnde yu leer ay mandarga. Hmm. ba mbir mi amee ñañu ko jëkk a wax dañu leen ne wane leen ñu preuve yi wane loolu ngeen di ñaxtu am na. Mhm. yónnee leen ñu reçu. Mhm. démb rek lycée bu Wakaam. Mhm. lycée Amath Dansokho. envoyé nañu non seulement reçu envoyé nañu sax benn euh, procès verbal huissier bu ñu jël. pour ñaxtu loolu parce que proviseur daf bëggoon a def forcing par rapport ak loolu. defe naa ne la yooyu ay preuve yu leer la. CM Samba Gueye bu bu bu bu HLM. juróomi junni lañ def ne ñaari junni yi pour frais d'inscription la ñetti junni yi pour ay tenues alors que ci taxe bi dañu ne ci ñaari junni yi lépp war nañ fa lañ ko war a jukkee mm-hmm. donc ñun am nañu déjà ñooñu te leer na ma ne bari na ci réew mi ñoo xam ne ñii lii et particulièrement dans région de Dakar ñoo koy def mm-hmm. parce que suñu bànqaas bi nekk Kaolack ñoom waa ji fa nekk moom mooy point régional bi nee na en tout cas li mu gis moom ci région wu Kaolack yëpp daanaka ñoom la ñuy mais nan la ñooñu nga xam ne ñi yenn saay ay abri provisoire la am am ay jafe-jafe yu gën a tar di def dix mille yow nga nekk Ndakaaru nga xam ne école yi ngay demandé ay vingt cinq mille te boo demee ci école bi mënoo gis lenn loo xam ne diñ ci a teg baaraam ne ñoom ko defar mm-hmm. mais mënul nekk mm-hmm. mënul nekk mm-hmm. donc lii wax dëgg yàlla dinañ ko xeex nag bu ñu ko xeex waaye nag waajur yi ndongo yi ñoo war a am seen fulla particulièrement organisé wu aussi en association de parents d'élèves parce que yenn saay am na waajur yoo xam ne aussi dañ bàyyi seen loxo seen doom bu ñu ñëwee ba mu inscrire rek pare nañ ci bala ñu faa ñëwati dañuy joxe bulletin wala yenn saa sax seen doom moo ñëw jël bulletin du ñu xam dara daal nan école bi fonctionné donc wax tous les parents d'élèves nañu organiser au niveau des écoles di am association nga xam ne bi problème bu am buñ ko jëlee ñoom ñëpp à bras le corps dinañ ko mën a saafaraal ndax ñi ngeen jot a waxal jox nañ leen engagement ne dina am lu ñu def ba ñoom duñu nangu dogal bi mais lii sa wakam boobu ma la wax tey si suba rek démb bi ñu ma woowee nee nañu tey si suba dinañu am benn groupe boo xam ne dinañ fa ñëw dal di fay toog di vérifier loolu yëpp vérifier ko. Mhm. léegi nag bu fekkoon ne ñëpp def nañu comme lycée boobu nañu def. Mhm. je que dina ci am solo mais ñun lii suñu wareef wax nañ ko def def nañ ko. Mhm. informé nañu largement ñëpp par rapport ak loolu. léegi nag parents yi ñooy mën a jël seen responsabilité. bu fekkee nag parent dafa nekk di yaafu su ko nooy ba loolu ñu dal di koy jël koy teg ba mu nangu ko. Ah kooku moom moo xam waaye ñun li ñuy suñu devoir ñun en tant que kuréelu wéjuru ndongo. Mhm. wax nañ ko ba pare teg teg joxe document bi justifier loolu. Mhm. loolu nag moom mooy suñu rôle li des nag. de seen responsabilité. jël seen responsabilité. voilà ci mbir moom la sax mu am beneen mbir mi nga xam ne année scolaire deux mille vingt et un deux mille vingt deux bi boo mayul dina euh, sooxe muy enseignants yi syndicats yi mhm. ñoo ngi yëglu mhm. euh, jamono ji nga xam ne atum ren dara du mhm. yomb boo mayul quantum horaire bi duñ ko respecté ndax ci ay élection lañ jëm euh, bu weesoo élection yooyu am na CAN bi muy Coupe d'Afrique bi bu weesoo loolu tamit ñoom enseignants yi am nañ tamit seen i ci biir ndax foogoo ne année bii daal. Sénégal dina am dina métti loolu ci wàllum respect quantum horaire. Mhm. xam nga dama euh, xajale woon ñaari gàllankoor. Mhm. yu mag ñoom ñoo maanaam nar a indi problème. Mhm. pour école bi dal di doxee na mu war a ci njëkk mooy bi boo xam ne bi saafara bi mu ngi si biir ministère bi. moom mooy wàllu accord yooyu nga xam ne dañ ko signé woon. ba depuis ñaari ñetti at a ngi nii ak genn wàll presque euh, comme euh, kuréel bi ñuy wooyee euh, monitoring li ñuy waxoon ci monitoring pour di ko suivre. Mhm. dañu arrêté woon lépp. léegi nag fan yee passé woote nañu day métteel gi sax mooy ba ñu wootee juróom-benn ministre mësul am ñoom ñoo mujjee toog. Mhm. ku mel ni Abdoulaye Daouda Diallo doon ministre des finances mësul teew ca mbir ma mu nga fa woon. Mhm. ku mel ni Matar Ba ministre de sports parce que il est intéressé teewu fa woon. ak yeneen ministre donc. am nañu yaakaar ne bu fekkee ne dañuy euh, jéem a saafaraal mbir mi buñ ko waxtaanee ba juboo ci. Mhm. peut-être bii mooy gàllankoor bi gën a rëy mooy euh, maanaam grève yi nga xam ne nar na am. Mhm. léegi euh, syndicaliste artu nañu gouvernement bi ne leen ne trente novembre au mhm. war nañu am lu leer. parce que ñëpp xam nañ ne presque ministres yi yëpp ñooñu leer na ne bu desembre jotee ba février ci seen élection yooyu lañ nekk. donc mooy premier gàllankoor beneen bi gën a am solo nag. moom mooy wàllu euh, feebar bi mbas mi parce que dafa mel ni ñëpp dañu bàyyi seen loxo te ñun dañu ne mbas mi benn bu fekkee ne mbir mi wàcc na. Hmm. war nañu jàpp ne toujours mu ngi fi maanaam dispositif bi nga xam mu ngi si école yi muy raxasu ak ay sol ay masque dañ ko war a continuer. dañ ko war a wéyal. Hmm. Hmm. bu loolu wéyee mooy élection yi di ñëw jongante yi di ñëw ci wàllu gox-goxaat yi élection euh, locale yi. leer na ne ne à partir du décembre ba février. Mhm. dina mën na am ay perturbation kenn xamul nag yàlla rek a xam. waaye mhm. nag sóoraale ko baax na ci. parce que violence mën na ci dugg ay yeneen ak yeneen ak yeneen. bu loolu wéyee moom mooy élection yi nga xam ne yi élection de représentativité la. Mhm. ren lay am euh, maanaam déwén deux mille euh, vingt aussi man na indi ay jafe-jafe yaakaar mu sax mu xaw indi ay jafe-jafe noonu parce que yooyu ay dimanche la rek. waaye nañ ci bàyyi xel rek. parce que bañ a néewal benn gàllankoor bu ko defee yooyu bu ñu leen tenir en compte sans compte nag coupe d'Afrique bi. Mm-hmm. parce que coupe d'Afrique bi leer na ne bés bu Sénégal di football moom leer na ne moom euh, du ma ne ñëppay jàngi de waaye dina ñàkk dina am école yoo xam ne yi dinañu tëj. Mm-hmm. te loolu aussi day wàññi maanaam waxtu yi nga xam ne yi dañ ko jagleloon pour euh, xale yi. xale yi buñ ci boolee nag yeneen gàllankoor yi ma wax ci te léegi mën na indi vraiment euh, ay jafe-jafe yu métti. Euh, ci niveau jàngal xale yi nga xam ne dañu war a euh, war a mën def seen examen ak seen concours. ci xale yooyu la sax jeexale ak jàngalekat yi nga xam ne atum ren boo mayul dinañ bokk si ñi leen di jàngal. muy 5000 enseignants yi ñu recruter bu yàggul. recrutement bi euh, certainement suivre nga ko comme ñu bari nekk ci njàng njàngale mi ba muy am ci mujjantelu vacances yi la maanaam ci ndorteelu école. tey jii ndax yaakaar nga ne ñooñu mën nañ leen reverser ci système bi daar daar. waaw ñun déjà dañuy rafetlu le fait que lu toll nii euh, junni jàngalekat ñu dal leen dal di leen dugal parce que nag ba tey dafa manqué. Mm-hmm. te nañu fàtte ne bañ a fàtte ne aussi CRFP yi actuellement je crois yoo xam ne mm-hmm. euh, ci lañu ci la dañuy yokk ci ñooñu. Mm-hmm. waaye nag wàllu formation bi moom moo xaw a des. am na ñu ñu recruter ñoo xam ne ñii déjà mooy sortant yi nga xam ne yii am nañu seen diplôme ba pare te ñoom ils sont mais am na ñeneen ñoo xam ne ñii peut-être recruter nañ leen mais formation pédagogique ba ca war pour ñu mën a doon ay jàngalekat dafay des. Mm-hmm. mais comme ñoom euh, dañu ne euh, dinañ leen de formation bu gàtt. Mm-hmm. léegi ñu li ñuy ñaan te defe naa ne ñoom sax dinañ ko def mën nañu utiliser euh, virtuel bi maanaam xarale yu bees yi. di leen mm-hmm. jàngal même bu ñu nekkee ci gox gaxaan gën a sori. bu ñu amee ba pare nag bu vacances yi jotee ñuy dellu ci seen pays a. gën a yokk seen formation je crois que loolu bu ñu ko defee peut-être fii ak ñaari at dina mën dinañ mën a am ay jàngalekat yoo xam ne yi quand même am nañ niveau bu baax que avantage bi moom mooy gis nga ñii ñu jël nii ñi ci ëpp de waxuma ñëpp de mais ñi ci ëpp am na ñoo xam ne ñu dem nañ ba ay maîtrise mm-hmm. am ay diplôme yu mag baccalauréat boo ko seet sax moo ci gën a tuuti donc je crois que ñooñu déjà am nañu quand même euh, niveau boo xam ne bii boo leen accompagner rek accompagnement bu baax dina war a mën a permettre quand Euh, peut-être fii ak ñaari at ñu am ay jàngalekat de qualité. kon daal gisoo ci benn euh, sixi saxa ñuy jàngale en même temps ñu leen di former. waaw loolu sax dafa war même bu fekkee ne sax euh, dafa dañu génnoon CRPE. Mhm. xam nga njàng mi léegi dafay évoluer. bés bu mhm. yàlla sàkk mu am yu bees yoo xam ne yi dafay ñëw. Mhm. dafa di baax chaque fois bu fekkee ne yaa ngi jàng surtout am njàng parce que comme on a l'habitude de dire. quand on cesse d'apprendre. bon on cesse d'enseigner maanaam kii jàngale toujours dafa war di yeesal xam-xamam parce que aussi jamono ji dafay soppeeku te xale yi ñuy jàngal sax yenn saa yi ak technologie yi yenn saa yi am na nu muy demee ñu am ay information yoo xam ne yi jàngalekat sax amu ko mm-hmm. donc toujours dañu war a mën a da nga nekk jàngalekat bu xam dañ la formé formation bu normal mm-hmm. da nga war a toujours di remettre en question en cause say kii di recycler wu bu ko defee ngay mën a nekk euh, vraiment boo xam ne kii quand Euh, mbir bañ la raw quoi. parce que mm-hmm. jàngalekat boo demee demee dem ba mujj gi élèves yi nag lu koy raw. Mm-hmm. di wax ay informations yoo xam ne moom xamu ko déjà kooku moom lu doy waar la quoi jàngalekat. Abdoulaye Fane ñu lay jaajëfal bu baax a baax. voilà voilà merci beaucoup